mu nga ko mbokki internet yi jaa ngeen jëf leen di jaajëf ci safa beeg topp bi rek yéen ni taamu chaîne bi lee di fi taataanay xibaar jëm ci wàllu sport di wax na képp kuy gan ci page bi te abonné gul mën nga activé mën nga abonné su ko defee euh, lu ñu dugal ci vidéo nga mën a bokk ci ñi koy njëkk jot mbokki nag noonu la ñuy ñëwaat ak ci yeneen i xibaar jëm ci wàllu sport rawatina lii di football nag mbokki jàppee naa doomu Portugal bi lee di Cristiano Ronaldo ci ay vidéo ñu ngi di wax ne moom mi la mënagul fa football ndax euh, fa muy mën a euh, faaw euh, li di Al Nassr di club bu bees ba nekk fële ca Arabie Saoudite jaay benn joueur extra communautaire laata mu koy mën a enregistré moom doomu Portugal bi nga xamante ni. jamono ji commencé na sax ay entraînement foofu waaye mënagul a football ak këlëbam bu yees pile ñoom ñooñu di Al Nassr nag beneen doomu Portugal fi ñu toll moom la ñu tegaat gét bëgg ko fa andi gannaaw Cristiano Ronaldo kooke nag du kenn ku dul seen défenseur expérimenté bi ree di Pepe fi ñu toll nii daal Pepe daal bokk na ci ñi Al Nassr teg gët ngir bëgg kaa indi gannaaw bu ñu jëlee ki nga xamante ni moo di Cristiano Ronaldo bokk na ci aussi beneen joueur bi ñuy wax ne Al teg na ko bët muy Sergio Ramos le défenseur espagnol bokk na ci joueurs yi nga xamante ni nee nag fi ñu toll ni Al Nasr moom tamit bëgg na ko jël gannaaw bu ñu jëndee kile di CR7 di Cristiano Ronaldo bu Portugal mbokk yi boole ca Angleterre jàpp ne doomu Sénégal bi nekk fa nag di Edouard Mendy moom daal fi ñu toll nii Chelsea mu ngi xamaat ci ab xibaar ne dal nañu ko opéré opéré bi am na succès ndax moom mi la dafa am une fracture du deux du doigt loolu nag mu ngi ko jëlee ci entraînement moom Edouard Mendy ñu koy souhaiter un prompt rétablissement loola ci début de semaine bi la ñu génn donc ci la Edouard Mendy am ay blessure ci entraînement donc fracture du doigt ci la ñu ko mujjee opéré nag Chelsea di clubam li ñu xamal ne opération boobee mujj na jàll ci anam yu mucc ayib mbokk yi fële ca Espagne nag moom xam ngeen ne kii di Real de Madrid moom tey la def jongante. ci lu jëm ci Liga ak kii di Villarreal moom bu ñu see jëlee defar nag digganteem Villarreal 2 buts à waaye nag mbokk yi match bi xaw a am polémique ndax daal am na penalty bi nga xamante ni arbitre bi sifflé na ko ci match bi nag mel ni indi na coow après match bi coow noonu la kile di gardien bu Real de Madrid di Thibaut Courtois di indi ay kàddu bañ ko journaliste yi déggee mi ko nag laaj ko si match bi ne mu ne ñoom match bi donc xawoon na métti lool te xamoon nañ ko ndax nekk na terrain ma xam ne at yi jafe na lool ñu gañe fa waaye dañoo dugg ci match bi xaw a am ay jafe donc ñoom Villarreal moo leen gën dugg ci match bi eh, ñoom départ dañoo amoon problème mais nag bi ñu mi-temps yi ñëwaat ak 0 daal ñu jël ab but donc euh, mujjee égaliser ci ab penalti yi waaye dem tuuti rek ñoom it nag ñu tiré penalti ngir Villarreal penalti boobee nag nee na moom il faut que arbitre yi ñëw expliquer leen lan mooy règle dëgg-dëgg ci penalti ndax ki leen di David Alba dafa daal di glissé donc loxo bi ci suuf moo doon appui pour mu mën a jógaat léeg-léeg fi mu toll nii moom daal nee na ni ñu tiré penalti bi daal jaaxal na ko lool waaye nag mu toll nii li ñuy xaar rek mooy amaana arbitre yi expliquer leen lu ñu mel lan mooy règlement bi ci wàllu loxo yeeg yu ñu mel Chelsea gi la nag moom euh, daal dina daal euh, signé officiellement. également ki nga xam ne mooy Andrei Santos pour 12,5 millions d'euros de frais de gama donc ki lay di rek mbokk doomu français bi la nag moom daal dafa daal di refuser bu ñu sukkandiku ci ay xibaar ki lay di Brésil nga xam ne dafa ko soxla gannaaw. kile di titre moom Brésil nag soxla Cristiano Ronaldo pour mu ñu remplacer ko fa euh, yore équipe bi la di Brésil noonu nag mel ni Cristiano Ronaldo daf ko euh, ngeen baal ma Zinedine Zidane daf ko bañ dàq dàq aussi lii di USMNT pour daal moom fi mu toll nii nee nañ daal li nekk ci boppam nekk ci gëtëm rek mooy ëllëg ci kanam nan lay def ba jot ci équipe bu France boobee équipe bu boobee nag nga xamante ni nag kile lay di Didier Deschamps sax daal di ne prolongé contrat fii ba 2024 euh, moom Deschamps kon dafay wéy di nekk ci bopp li lay di équipe de France waaye nag di Zinedine Zidane mi ne daal ba léegi moom Zinedine Zidane li nekk ci boppam rek mooy jot ci équipe de France daal